parti démocratique sénégalais ñoom nag dañoo bañoon daal ki nga xam mooy fi nekkoon jëwriñ dénk wàlluma justice nekkoon fi premier ministre Aminata Touré mu nga xam ne moom lañ nar a teg te mu yaatu lool ñoom ne nañu mukk du ci bokk ndax gis ne yàgg na daal du mooyu ndax gis nañ ne ba mu nekkee jëwriñ nga xam ne moo dénk wàllum yoon daanaka Karim Meïssa Wade moo ko teg ñoom jàpp ne daal ne Aminata Touré seen noonu la ba faw ba tax na ñoom taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ne daal duñ ci soppi daal la dara waaw nekk na naam candidat bi nga xam ne dañ koo éliminé woon ci atum 2019 waaye itam secrétaire général PDS nag moom jàpp na ne kat appareil politique bi nga xam ne coalition benn bokk yaakaar ñoo ko daal di jiite ñoom nag jàpp na itam la nga xam ne daal mooy seen métti daal ci ñoom la jógee Aminata Touré nag nekk responsable politique ci APR ci jamono joojee nekkoon collaboratrice bi nga xam ne mooy lëkkaloo ak njiitu réew mi moom nag daanaka loxum jógu ca ci li nga xam daal mooy traitement dossier bu Karim Wade waaye ba tax na sax loolee moo ko daal di yóbbu nungu siin maire boobu nga xam kat moom la waa PDS logoon ñoom ba tey mënu su ko wanaasu ba tax na sax met na leen ñoom nag bañ nañu ba lànk ba tëj ci naaj wa nag nga xam mooy Aminata Touré du bokk bi waxatuma laak sax naan dañuy bokk ak ñoom di xeexe wala sax bokk ci ku jéggile diggante ak moom dóor fayu kon nag li nga xam mooy wàllum adversité maanaam noonoo gi xew seen diggante daanaka dana jur jàmmarloogu nga xam ne moo nar a xaaja di kuddee gile loolee sax ci fàttali ci vie politique bu Sénégal loolee dal sax Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne dañ koo jàppoon nag ci nga xam mooy mbiri caisse d'avance ci mairie bële ba tax na mu daal dugg ci nungu seen loolee sax gis na ne moom moo taxoon daal ñu teew ko nële dañ ko daal di dàqoon ku ci mel ni tamit Karim Wade ak ki nga xam mooy Khalifa Sall jàpp na ne kat ay adversaire personnel yi nga xam ne mooy bu njuuti réew mi waaye ñu gis tamit ne daal Sonko moom sax moom moo ci gën a tarle waaye ci ñaar ñooñu nga xam ne daal moom la ñuy waajal di élection teg njuuti réew mi seen ñoo bokk nag moom wóoru ca kon nag li nga xam ne mooy wàllum noonoo moom foo ko takk weesu na ko ndax gis na ne day nar a yàq ku gi waaye ginnaaw ku gi ñi nga xam ne ñoo toog ci donkaas gi ñoom itamit kenn demul ñu des lu ci mel ni rek réew mi bu Idrissa Seck ndax moom daanaka sax yàgg naa lëkkaloo ki nga xam ne mooy njiiti réew mi ba tey mu daal di koy tabb mu nekk président conseil économique social environnemental ba jamono ji nag moom ne day samp ndëndëm waaye tam ci biir ku gi le jàppante yi am na ci biir coalition yi le ba ñàkk déggoo daal tax na ba waa yeewi askan wi ak waa wàllu daanaka sax day ni daal waxtaan ku tax kon tamit loolee sax moo dal Sénégal ba ci les serviteurs kon nag ci atum 2023 bi nga xam ne ci lañ nar a tàmbali pré campagne bii ci candidature yi nga xam ne kat ñoom ñoo déclaré kat ñoom dañoo bokk ci élection 2024 loolee daal tax na mu daal di jur ak noonoo xam ne amul àpp kon nag guerre bu métti la laataa ñuy yegg ca 2024